it eh, Sakho danaa am tuuti lu ma la fàttali. waaye Sakho danaa am tuuti lu ma la fàttali. mooy Touba. mooy Touba. dëkkub Serigne Touba la. dëkkub Serigne Touba la. lu ngeen fiy def sëriñ bi ngeen koy defal. lu ngeen fiy def sëriñ bi rek ngeen koy defal. sëriñ bi leen koy defal itam. waaye sëriñ bi li ngeen koy defal it. taalib yi koy jëriñoo. taalib yi ñoo koy jëriñoo. ndax lu mu ci doon rek sëriñ bi koy jëriñoo sëriñ bi la. mu ci mën a doon rek sëriñ bi ci gën a néew la. ndax wax bu ñuy wax dëkk bi. ndax bu ñuy wax dëkk bi. taalib yi tax ñuy wax. taalib yi ñoo tax. kon liñ leen di defal. kon liñ leen di defal muy àgg ci ñoom. muy àgg ci ñoom. waaye itam. waaye itam. am na ci loo xam ne. am na ci loo xam ne. Euh, mën naa gën a bàyyi xel. mat naa gën a bàyyi xel. ndax booy jëflanteeg nit. ndax booy jëflanteeg nit. ak wegeel da caa baax. ak wegeel da caa baax. ndax mënoo ñëw cib dëkk. ndax mënoo ñëw ci dëkk. fa projet bu toll noonu. def projet bu toll noonu. te dëkk ci dëkk ba xamuñu sax projet bi nu mu demee. ba ca nga xam ne ña dëkk ci dëkk bi sax xamuñu projet ba nu mu demee. man mii di wax ak yéen. man mii di wax ak yéen. tanewuma leen ci. tanewuma leen maa ko lijjanti woon. ca maa woon. ka mii xamu ci dara. Abdoulahat ka mii xamu ci dara. sëriñ bi nga xam ne maa ko war a leeral. sëriñ bi nga xam ne maa ko war a leeral. yéen ko yéen ko ci tane. yéen ko ci tane. asama population bi ci dëkk bi. asama population bi ci dëkk bi. loolu dimbalewul président bi ngeen di jëfal. ndax loolu kon dimbalewut président bi ndax nit boo koy dimbale. ndax nit boo koy dimbale. koy jëfal daa war a leer ci ña ngi koy koy jëfal dafa war a leer ci ña ngi koy jëfal. ñun ñun ci kanam. ndax ñun ñu nekk ci kanam. bay leer ci taalibe yi ne ci dëkk bi. leerut ci ñun bay leer ci taalibe dëkk bi. itam. ca dëkk bi itam. dafa am nu bindoo. fépp fépp féppay farata. féppay farata. waaye priorité bi. waaye priorité bi mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. quartier yëpp tolloo. kàll quartier yëpp tolloo. ñëpp yam ci. ñëpp yam waaye fi mu toll nii. waaye fi mu toll nii. boo jokkatee fii. jokkat fële. jokkat ñi ngay defal xamuñ lu mu. ngay defal xamuñ li ñu leen defal. ak defar. mën ngaa andi ak defar. te fekk li nga defar ak yàq lay mujj. te fekk li nga doon defar ak yàq lay mujj. nee na man woo mi woo naa la yoon. gisee ma leeral ko boo gisee ma leeral ko. laaj naa ko ci lu ëpp ñetti yoon. laaj naa ko ci lu ëpp ñetti yoon. waaye bu ma ko laajee du ma tontu dara. waaye bu ma ko laajee. tontu ñëpp xam loolu dama koy wax ñëpp xam ko. ba ci ëpp fukki fan. ba ci ëpput fukki fan. mu ne ma dinaa la woowaat tontuwaatuma. mu ne ma danaa la woowaat waaye tontuwaatuma. kon maa yéene ci yem. kon maa yéene ci yem. yu ñu koy def. yooyu nag daa bëri yu ñu koy def. te loolu euh, dugg wegeel. te loolu du wegeel. du dimbale seen kilifa yi. dimbale seen kilifa yi ngeen di liggéeyal. ndax kilifa boo koy jëfal. ndax kilifa boo koy jëfal bu ngeen agsi wut ci man itam. bu ngeen agsi ci man jaar ci Abdou Lahad Ka. jaar ci Abdou Lahad Ka. wala ngeen jaar ci député yi. wala ngeen jaar ci député yi wala ña war a xam-xam. wala ña ci war a xam. Ah, loolu daal mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. loolu naa mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. ci liggéey ci liggéey. njàmbat li bëri na ci. njàmbat li bëri na ci. projet yu mel noonu yu bëri ci projet yu mel noonu yu bëri bëri. ñun duñ toog ci rajo bi di wax. ñun nag duñ toog ci rajo bi di wax. ndax euh, kilifa. ndax kilifa. bu fekkee boo waxee moom mu dégg la. boo waxee moom mu dégg la. doo toog ci rajo di ko weer. doo toog ci rajo di ko weer. ndax loolu. ndax loolu. am nañu ko moomut. am na ñu ko moomut. boo gisee ma àggee ko nii itam. boo gisee it ma ko nii. mooy moom mii. mooy moom mii jàmm képp laa seq ak moom. jàmm rek laa seq ak moom. sama xarita. sama waaye du ànd ak nit ci lu dëgg. waaye du ma ànd ak nit ci lu baax rek laa xam ci moom. lu baax rek nag laa xam ci moom. waaye nag. liggéey sëriñ Tuubaa bi moom. liggéey sëriñ Tuubaa bii nag. fi ma nekk. day yëfi jàmbur. day yëfi jàmbur. kon lu ci doon rek. kon lu mu ci doon rek. daa war di leer. war di leer. ñuy xam nam demee. ñuy xam nam demee. ba ñu ko war a leer leeral. ba ñu ko war a leeral leeral. waaye entreprise boo koy defal. waaye entreprise boo koy defal. suñu yoon néew ci. suñu yoon néew ci ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet. ko lijjanti ci benn projet. ba xam kum doon. ba xam kum doon. waaye la ñuy liggéey moom. waaye la liggéey moom. ndegam ci dëkk bi la jëm. ndegam ci dëkk bi la jëm. ci sëriñ bee tax ñu ko fi def. te sëriñ bee tax. bu ñu leer ñun bu ñu leerut. nga xam loo ci laaj kenn tëniwu la ci. boo loo xam ne loo ci laaj kenn tëniwu la ci. loolu moom neexut a firi. loolu nag moom neexut a firi. waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax. wasalaamaaleykum wa rahmatullah